وغرك منها سلم باطنها حرب فذرها وشرق لا يقر بك الغرب بيثرب نور للنبوة لا يخبو تشارك في إدراكي طرف والقلب azim ayyuha almushahiduna alkiram asalaamu aleykum wa wa barakaatu yéen mbokk yi yéen soppe yi yéen xarit yi ñoo ngi leen di nuyoo fii ci xadra cheikh alhaaji malik radiallahu taala anhu fii ñu leen di nuyoo nag ñu dalal suñ benn mbokku daara muy boroom xam-xam di kenn ci daara ji di kenn ci koo xam ne sëriñ Mouhamadul Mansour al Khalifa moo ko yar moo ko jàngal ñu war a waxtaane lenn ci dundu Mawlana Cheikh Cheikh Seyd Mouhamadul Mansour ki nga xam ne moom lañuy dalal ci waxtaane mooy oustaz alxaaji Maodo Malick Sow turandoo Cheikh alxaaji la ci tur waaye itam jël na ci turandoom ay melokaan mooy xam-xam ba ak bëgg xam-xam ak jàng ak jàngale soo ñëwee Tiwaawoon foo ne daara Maodo Sow ñu woon la ko yàlla dogal mu jànge Tiwaawoon ci sëñ Mansour mu yar ko wóolun ko doyloo ko mu nekkan ci kippaaram di ko doxal ay services yu bari ba sëriñ gërëm ko sant ko ñaanal ko yàlla dogal na ndaw yi nga xam ni moom la xadra bi am te ñu mën leen a joxoñ ci xam-xam ak dignité bokk na ci bokk na ci ñi nga xamante ne bii acherul arab yi muy woyu arab li muy jafe-jafe yàlla may na ko ci mu not ko ba boo gisee woyam dangay yaakaar ne xanaa kat lii du sénégalais wala boog du nit ku ñuul moo mën a woy lii kon mu nekk shaair nekk na aalim nekk adib nekk faqih di jàngale funuun yu baree baree baree bare xilaasaab mu alfar Cheikh Hadj Malick yëpp da koy jàngale boole ko a bu rafet mu koy jàngale yor daara joo xamante ne bii la turandoo la turandoo mu Seydil Hadj Malick daan def mooy toog di jàngale te Maulana Cheikh Mouhamadul Mansour doon na ko ci moom di ko jàngale moom itam jël na ko ci turam turandoom kon Maodo Alhaaj Malick Sow la ñuy dalal tey di la wax Maodo asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa ñu ngi di la delloo nuyu la delloo ziyaare xalifa bi ne moom la yàlla teg ci bopp xadara bi muy Mawlana Cheikh Aboubacar Sy Mansour ak mboolem ay rakkam yëpp ak njabootam yëpp bisimilah barakallah kon suñu nuyoo dañ koy yëkkati rek teg ko ci loxo Mawlana Cheikh Seyd Aboubacar Sy al Khalifa mu alaaji moom alaaji Mouhamadul Mansour nga xam ne moom sëñ Bay ba sëñ Bay Mansour mooy xalifa bi di ko nuyu di ko ziar di nuyu ay rakam yëpp yal na yàlla defal leen jàmm defal leen tawfeex te ko na ci biir xaj maa ne dañoo bëgg na waxtaan ci góor gu baax goog nga xam ne ku tudd sëñ Mansour tudd yu bari ci ay qualité mm-hmm. ñu bëgg na wax xam sëñ Mansour moom mooy kan ak fan la juddoo ak kañ la juddoo Cheikh Seyd Mouhamadul Mansour radiallahu taala anhu ñu gën koo xamee si Mansour si borom daara ji ñeenteelu xalifa Cheikh Al Hadj Malick di mooy premier set bi nga xam ne moo njëkk toog ci xilaafa tijaniya bu tiwaawoon nga xam ne Cheikh Al Hadj Malick radiallahu taala anhu moom moo ko indi fi mooy Cheikh Mouhamadul Mansour radiallahu taala anhu mu ngi ganisee àdduna fii ci tiwaawoon desul samedi le 15 août 1925 ci tiwaawoon ci la ganisee àdduna ci yu tedd yu sell mooy cheikh seydou aboubacar si radiallahu taala anhu ak soxna aïsatu sekk kooku mooy cheikh seyd mouhamadou mansour barakallahu kon yaakaar na ñiy déglu danañ xam sëñ mansour mooy kan fan la juddoo waaye itam beneen laaj bi ñuy tegal yow seydina mouhamadul mansour nee nga mooy premier sët bu nekk ci bu toog ci xilaafa gi mm-hmm. waaye ñuy laaj sëñ mansour moom bi mu ganee àddina tiwaawoon ak xam-xam bi ko yàlla may ndax génn bitim réew fan la jànge xam-xamam bi nga xam ne ñëpp nawloo nañ ko ci ñëpp bàyyi nañ ko ci xel. Cheikh Ousmane li nga laaj lu am solo la waxuma bitim réew waaye Tiwaawoon rek Cheikh Mouhamadul Mansour xam-xamam bu réew bi génnul Tiwaawoon Tiwaawoon ci la jànge ndax maa jële ci lamiñam nee ni moom ak seexam sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane si almaktum radiallahu taala anhuma ñoom ñaar ñoo dalandoo benn bés muy alarba ci góor gi Ibrahima Dieng nee ni moom soxna Aïchatu Seck radiallahu taala anha moom moo ñëw fekk leen ñuy def yëfu xale di foo mu jël leen ñoom ñaar yóbbu leen ci Cheikh Ibrahima Dieng mu ne leen dalal leen ba seen waajur ñibbi si fekk seen Babacar daa génnoon ba seen Babacar si génne ñu nekk diir ci Cheikh Ibrahima Dieng seen Babacar si jël ñoom ñaar mu leen Cheikh Mama Lo Cheikh ci la ñu jàng Alquran ba tarifa Alquran ci tarin bu rafet moom ak Serigne Cheikh radiallahu taala anhuma ci la commencé nag muy jàng xam-xam yi mooy comme niñ ko miinee ci daara laxdari asmaa yi euh, muqaddimatul izzi feq euh, feq boo feq jeex ci wàllu yeneen funuun yi ci wàllu grammaire naxw noonu ba mu jeex yenn fànn yëpp fii laa ko jàngee ci tiwaawoon moom Cheikh Seyd Mouhamadul Mansour radiallahu taala an kon mel na ni waxal nga nu moom ne li muy bari bari xam-xam ba ñëpp naawoon ko génnul ëttu ëttu maamu Cheikh Alhaji Malik radiallahu anhu hmm. loolu dina nu poussé nu laaj sëñ Mansour fànn yi nga xam ne moom la daje leen mm. nga xam ne wax nga ne daana jàngale chariatul islam muy fiq mm. wax nga ne daana jàngale téere yu bari waaw ndax sëñ Mansour ñaata at la toog jàngale ko ginnaaw bu nga xamante ni bi jàng na ba am xam-xam waaw Cheikh sëñ naa ci làmmiñam mu ne toog na fanweeri at ak juróom yoo xam ne musul doggante di ko jàngale huit heures suba ba huit ci ngoon jëlee naa ci sunu sëriñu daara ko tudd sëriñ Aliou Ndiaye mm-hmm. mu ne daan nañu toog ci sëriñ Mansour ñoom di jàng boo ndekki ñëw mu dal di teg ndekki bi di continuer di jàngale di jàngale boo boolu añ ñëw mu tegaat ko ci wetam mu continuer di jàngale ba réer ñëw mu tegaat ñetti bool yi bu paree ci njàngilam boobu mu commencé nag mu ne nañ ma tàngal ndekki bi nañ ma tàngal añ bi nañ ma tàngal reer bi loolu def na ko diiru 35 ans yoo xam ne mu ngi koy def loolu moo tax Maulana Cheikh Al Hadji Abdoul Aziz mu daal di ko seede bil ilmi wa taalimi fuxtuma xayrakum mhm. wal bazli wal infaq wal ihsaani mhm. loolu def na ko diiraam boo xam ne 35 ans te 35 ans yooyu li gën a jafe funuun yëpp da koy doon jàngal ndax man xaw ma benn fànn boo xam ne Sëñ Mansuur daanaka delloo bu dee ci fiq macha allah bu dee ci usul usulul fiq macha allah bu dee ci bayaan nag moo doon moo doon matière am bu dee ci wàllu naxwu moom kenn xam ku ne xam ne Cheikh Seyd Mahamadul Mansour ni mu meloon ci wàllu naxu ak yeneen xam-xam yi bu dee ci siira ku ne xam na ni muy doon toolee ak ni muy doon waxtaanee ci yonte bi sallallahu taala alayhi wa sallam loolu naa def na ko diiru 35 ans ndax mus naa ko laaj loo teg bi lan moo ko indi mu ne dem ko miin ci daara bi mhm. ndax boobu benn téere rek nee ne daana ci jàngal comme système daara ni ñu jàngalee benn téere ay juróom fukki nit bokk ak te kenn ci sa morom du bokk leçon bu paree ci kooku keneen ki mu nekk loo teg ci la miin baatu loo tegam boobu mhm. bo mu far bu doon gàmmu sax day fara di wax ni loo teg barakallah hmm. kon mel na ni yow itam wax nga ñu sëñ Mansour radiallahu anhu euh, diir bi mu toog jàngale ko nga xam ne loolu lu yéeme la fan at ak juróom nga toog sa reer sa sa ndékki sa añ sa reer di tegandoo ngir nga ittewoo xam-xam te fànn yëpp ngay jàggale boo jógee ci fiq yaa ngi ci luga boo jógee ci luga yaa ngi ci yeneen luga funuun luga arabiya ba tafsir xuraan am na mag ñu bëri ñu ne ci xaadara bi moomu leen tafsir xuraan waa dañu dañuy laaj itam sëñ Mansour yàlla dogal na mu ne ci xilaafa gi bi muy ban at la nekk xalifa ak boobu ak boobu ñaata at la am bi mu nekk xalifa Cheikhuna Tidiane yi fii waaw Cheikh Sëñ Mahamadul Mansour mu ngi nekk xalifa Cheikh à ah, le 14 septembre 1997 14 septembre 1997 mooy ba Mawlana Cheikh Alhaaji Abdul Aziz radiallahu taala anhu génne àdduna awaa booy Cheikh Alhaaji Abdou génne àdduna muy le 10 wala le 11 octobre ci laa ko wóolu bésu alxames mu nekk dama bëgg nga wuy sim Cheikh Seyd Mouhamadul Mansour jaar ci raw di ziyaare dem si baayam Cheikh Haaji Abdul Aziz boo mu ngi Dakar bu ma agsee ci la génnee benn xasida boo xam ne da koy won mooy li ñu tuddee di ko wax ne bés na tey yow yaay xalifa Cheikh loolu lu yéeme am na ndaa dippi Seydina Cheikh radiallahu taala anhu ba fi ñu toll nii Cheikh Mouhamadul su jotee xilaafam amul benn xalifa Cheikh boo ko jotee xilaafam ndax li ñu miin xalifa Cheikh ki fi nekkoon nekkatu fi nga yelloo nga nekk xalifa Cheikh waaye ki la koy jox mu ngi dund mu jox la mu nekk tey yaay xalifa Cheikh te boobu Cheikh Al Hadj mu ngi dund ñetti fan ñeenti fan la ci te mu génn àdduna loolu mu ngi ko jotee bésu alxames muy 11 octobre euh, septembre 1997. boobu sëriñ baa ngi am 72 ans bu mu koy jot ndax ci xilaafa bi toog na ci 15 ans te moom bu muy génn àdduna mu ngi am 87 ans. barakallah kon loolu leer ne xanaa ñu laaj rek sëñ sëñ Mouhamadul Mansour ni mu yittewoo woon géewoo xam-xam yi wax nga ko mooy cinq ans waaye ndax ndax sëñ Mansour aman na métier bu mu daan jëfandikoo nga xam ne te ni bii addiya rek daawu ca yem wala am na am na yeneen yu mu daan jëfandikoo. waaw man ku miin am na ñetti taa yu muy doon fara di wax tool si tool yi tiwaawoon téere yi mhm. nee ni man loolu mooy sama mécc mhm. moo ne daana wax ne mbay mhm. ak bay mbay si ak béy man ñaari baa yooyu laa xam ku ne xam ne moom mécceem lépp mu ngi ko defoon ci wàllu xam-xam ak lan liggéey ndax fu ne fogg na fa suuf ay tool yu demee noonu fu ne ci biir Sénégal am na fa ay tool yoo xam ne dafiy doon bay chaque année di ci récolter lu bëree bëri di ci faj ay soxlam di ci yóbbu ay nit ñi màkk di ci def yeneen yeneen yu bëree bëri kon moom daa taamu woon mécc yont bi te mooy jàngale moom la defoon muy méccam ak liggéey ndax maamam Cheikh Al Hadj Mali bul fàtte Cheikh Ousmane maamam Cheikh Al Hadj Mali dañu woon wa aqilun fi shay'ayni yas'a fala salisa duna mayn nee ni ko am xel ci ñaar lay tenku du leen wutal ñetteel ñu ne Cheikh Al ñaar yooyu mooy lan mu ne liggéey ak jaamu yàlla ci wut ñetteel Cheikh Mouhamadou Mansour nag ci ñaar yooyu la tënk woon. barakallah dafa mel ni kon leeral nga sëñ Mansour ne borom métier laan. Hmm. te métier bi mooy ba ci gën a noobal mooy ñi métier mbéy. nga wax ne am na suuf yu yaatu daa ci béy lu ne. Hmm. bari na ñu yóbbu màkk ci wu ñaqu ñaqu boppam ci la leen yóbbu ñàkk. waa sëñ Mansour itam ku ko wax wax borom ijaaba. Hmm. ndax ku ma sa xelaat am problème wala nga am aajo bu fajuwut danga naan naa dem sëñ Mansour ñaan ma. ndax moom jàngale gi mu daan jàngale ak liggéey bi. mënoon naa dox digganteem ak moom mu jàmm yàlla ba yàlla may ko ijaa kon xeetu jàmm yàlla ginnaaw bi muy jàngalee ba pare nan nan la sëñ Mansour doon yittewoo ci boroomam yittewoo ci kurusam ba yàlla may ko ijaa boo xam ne kenn du ko werante waaw waxu Cheikh sëñ Haadi Touré bi mu waxoon Cheikh El Hadj man ci sëñ laa koy doon xoole mhm. ndax sëñ woon Cheikh El Hadj Malick waxuma du ma nelew du nelew de waaye ban heure lay nelew laa xamul man Maodo man Haadi waaye sëñ Mansour man loolu moo daloon ci moom du nelew waaye ban lay nelew ndax yaa ngi koy gis mu nekk ci téer yi bu jógee tëjoo na yor kurusam nekk di jaamu suñu borom tabaraka wa lu mu guddi guddi ba ñëwee fekk ko ci sajaade bi muy naafila wala mu yor kurusam di jaamu sunu borom tabaraka wa taala loolu lu liggéey boo yàlla may ko ñaar yi gën a jafe moo juboo nit ñi ak juboo sa borom moom nag yàlla mayoon na ko juboo nag nit ñi ndax ku ñëw dina la fajal sa soxla juboo nag boromam ndax li nga xam ne moo dox diggante ma sunu borom tabaraka wa taala mu koy doon def loolu moo taxoon yàlla may ko ijaaba ndax ku sa botu xonq foo mën a dem moo nekk Sénégal moo xam foo mën a nekk sa xel fu muy dem mooy naa dem seeti Cheikh Mouhamadou Mansour te yàlla dogal na boo ñëwee yàlla dina ko sagal ak gum bi mu ko gum ak wóolu bi mu wóolu ndax daana faral di wax ne fu yàlla wax ne boo may ñaan da ngay wóolu man dama lay jox moo taxoon ne moom bu la ñaanalee bu pare rek da lay wax ne demal bal bi takkan te boo demee noonu lay demee incha allah loolu sëñ sëñ alxaaji Malick moo soow loolu dañ ko mën a gëm bu baax ndax da ngay gis ku bitim réew am problème téléphoné ko mu ne la gëmmal wala tàllal sa loxo nga tàllal mu ñaan la demal nga dem sa soxla faju kon kooku ijaaba mënu ko paase waaye nag ni mu daan fajee faje soxla nit ñi ci ñaan tabeeg sëñ Mansour ci joxe laa bëgg na xam yow noo ko daan xaymaa ci bu daan faj soxla yi ci joxe waaw ci tabe sëñ bi li sëñ Babacar Baayam waxoon maanaahu baharun falaa yumaasilu baharun maanaahu bahrun fa laysa al aqlu yudriku ma wara tawri l xija law kaana yahwa bu muy melal cheikh na tijaani radiallahu taala anhu dene woon maanaa sëy naa cheikh comme géej la mu dem bu ci biir mu ne booy xool sax cheikh moo gën a tabe géej kon nag cheikh mouhamadou Mansour noonu demoon moom mbir yi ni koy doon dikkeele moom bu ñëwee balaa mu am jàmm mu tàqalikoo moom bu doon balaa mu doon gën a di préparé bu génnee ba pare ku ñëw soxla boo ko wax loxo baa ngi ci poos moom Serigne Mansour ku ko miin xam ne moom xaalisam yépp ci poosu dënn la koy doon def ndax danoon wax ne poosu dënn moo gën a jege loxo booy wax du fa nekk di lamb fu jege lay lamb rek daal di la jox noonu la doon faje yu mu yu bëree bëri ndax am na at boo xam ne ci tabi mu ngi yem ci am na at boo xam ne jël na ay cent quelque cent cinquante personnes ñoom ñëpp mu jox leen ay billets mak ak devise ak ay seen dépasse fii mu yóbbu loolee ñoom ñëpp ñu daal di dem màkk loolu naata bi mënu weesu foofu. xam nga loolu lu yéeme la lu ma téeméeri nit ak juróom fukk nga ne leen maa leen di jox billet màkk kaay leen te ba la koy jox weeru koor la ko jox. ba pare bégal la ne la wax ma looy dépensé ci sa weer ci bis bu ne nga wax ko mu calcule weer wa ngay def màkk yëpp joxe la dépense boobu ne la bàyyi ko sa kër jox la billet jox la di yaakaar naa lool tamit mënu ko passé. loolu nag nitu yàlla bu dul liggéey mënu ko kon sëñ Mansour liggéey bi mu daan liggéey di jaamu yàlla di tuur aw ñaxam ci la ko yàlla maye ñaar yooyu moo am ijaaba jubóog boromam waaye moo am cofeelu nit ñi ñëpp di ko dëgmal si waaye dañuy laaj sëñ Mansour bi mu nekk xalifa ak laata muy nekk xalifa nan la daan taxawoo nan la daan yittewoo ëttu euh, ëttu maamam rawatina bu gàmmu jotee nan la ci daan euh, nan la ko daan waajale Cheikh Mouhamadou Mansour yàlla de ko defal benn jagle cinquante cinq ans Cheikh Ousmane toog nag cinquante yoo xam ne musul manqué burtu mooy ba sëñ Babacar si radiallahu taala an jógee 1957 ba moom boo mu fi jógee 2012 muy 55 ans yoo xam ne musul tardé benn burtu 55 ans yoo xam ne musul tardé benn guddi gàmm guddi gàmm burdu bi da koy doon jiiti mu dal di euh, woy burtu bi ba mu jee bu suuru gàmm bi ñoo tey mu dal di ñëw ci nekk ci kanamu rakkam yu tedd yi mooy Serigne Abdoul Aziz radiallahu taala anhu ak ay njaboot yëpp mu daal di toog di di toj téere maama bi mooy xilaasu zahab euh, moom Cheikh Mouhamadul Mansour léegi nag ni mu koy doon waajale xam-xam bi lu muy bëri bëri yëpp daw woon toog ba bés bi ñëw mu daal di dem rek génne téere bi bu doon weer bi teru daanam faradi woo mu ne ma léegi nooflaay jeex na nelew jeex na ñu génne téere yi xilaasu zahab fu ci seexal xaymaal tudd mu génne ay référence yi maraaji yi masaadir yi mu génneek téere yëpp dañ koy doon yëlli bollal bi mu toog dee doon fees delli ci ay téere bu dee guddi ñu taalal ko lampe bi mu dal di niit muy wax ne liiral may dégg léeg muy liiral boppam di jël big bi di koset di bind di bind tor yi di bind yooyu yëpp naa da koy def diiraan juróom-ñaari fan mu dajale kayit yi mu bind yëpp soog laa ko jox mu ne demal sotti li boo ñëwee léeg-léeg nga sotti ba pare xam-xam borom xam-xam xam-xamam ni muy baree boo sottee ba pare mu éliminé loolu indiwaat leneen. nii la koy doon waajalee da doon jox daya. xam-xamam daa fonkoon xam-xam da koy doon jox daya bu bi xam ne moom moo ci war moom Cheikh Mouhamadul Mansour radiyallahu taala kon loolu leçon la ci nun ndaw ñi ñu jàpp moom li doon bari bari bari xam-xam dawul fëggu rek dugg ci jàkka ji waaye da ko daan waajal gëstu ndax ku bëgg wax nit ñi lu leen convaincre da ngay wax loo xam ne kenn du ko mën a toxal lu ñu mën a toxol nag dañ koy jële ci nas a diinu man xuulaatu la maa xuulaat diine ay textes yu ñuy toxal la ci al alquran ak sunna ak waxul olama waaye du nekk am xel mu rafet bu ñuy ñuy wax waaye sëñ Mansour wax nga ci xam-xamam wax nga ci tabeem wax nga ci ni mu daan waajale gàmmu gi waaw nag problème yi daan xam ci àddina bi nga xam ne léeg-léeg problème gaar boo xam ne àddina bi dañ cee war a wax wala moo gaar ci réew mi loolu nan la ci sëñ Mansour daan taxawee. waaw taxawaay bu am solo taxawaay kilifa ndax kilifa Cheikh Ousmane kilifa tamit baatu kilifteef daa rëy bu la yàlla joxe kilifa ngay yaa fi yilif nit ñi kon am na lu la war. loolu moo taxoon diine bi saa bu doon am problème yu rot ci diine bi wala ci kër gi wala ci tarix bi di ci doon taxaw mun naa la ci cité ñaar mhm. benn bi mooy caricature yoo xam ne waa Danemark ñoo ko jox defoon ci yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. boo ko yégee da ko métitlu yemu ci métitlu bi da ko bind bu ko bindee mu dal di ko dénoncé ci turu xadara bi ci turu lammiñu jullitu Sénégal yëpp ci turu lammiñu jullitu adduna bi yëpp mu daal di ko métti lu bind ak bu mu ko bindee mooy téere boobu tudd ashuma ala hamatil buuma bu mu ko defaree mu dal di te ni mu ko bindee moo yéeme da jëkk jël yonte bi sallallahu alayhi wa sallam tam hiital yonte bi leeru yonte mooy fan fan la xaqiqatul muhammad ya jaar di ko tam hiital bu àgg ci yonte bi kii mooy nii la mel kon ku mel nii nan lañ koy dessiné léegi mu ne kon loolu munu nekk de mu dénoncé ko boo ko defee mu daal di ko bind bind boobu bi mu bind cheikh abdul aziz radiallahu taala al amin joxe ndigal nañ ko dugal ci internet bi en même temps nañ ko traduire ñu daal di ko traduire français à anglais kon téere boobu baa ngi am ci bokk na ci tamit am na lu ñu fi xewaloon ñu koy tuddee ay góoru jigéen ak lu ñu fi xewaloon léeg nit am lu ko naqari dem ba ci buntu pale taxaw muy wax ne day taal boppam addu woon na ci defoon na ci ay thèmes yu am solo ci benn euh, ziare général ñu daal di ko traité jox ko Pa Muxtaar Kebe bi mu daal di ko wax ñëpp dal di ci kontaan dal xamaat waa kër gi wala jullit ñi xamaat fan lañu ñu war a tegaat seen tànk ndax nit warul am naqar ba pare mu koy fajee ni mu buggee dee dee xool ni sunu borom tabaaraka wa santaane. kon daal leeral nga ne sëñ Mansour lépp lu ma sa xew ci àddina bi rawatina Sénégal mu yitteel askan wi mu yitteel diine ji mu yitteel mbokk gi dana ci àddu waaye du ca doon àddu wax kese àddu borom xam-xam lay doon. dana jël pilimam bind ca loo xam ne ñii ñëw danañ ko mën a jariñoo waaye dana ci jël wax ba ñuy dégg jariñoo ko kon ñaari jaanib la doon doxe jaanib boo xam ne ñi teew buñ déggee kàddoom xam ne kan moo àdduna ci nangam waaye ñi nga xam ne dañoo ñëwaguñu wala ñu ngi fi tey sori nañ man amaana kàddu ko jotiwu leen dana bind mbind moo xam ne mu nekk xam-xam mu ba ko fi ba ëllëg ñu leen ne sëñ Mansour defal na nangam boo delloo ci téere yi xam ne waxan na ko loolu sëñ ma sëñ alxaaji Maodo Sow dañ koy rafetlu xanaa ñu laaj sëñ Mansour radiallahu taala anhu li nga xamante ni bi yàlla may na ko ko nga wax ne juróom fukki at ak juróom mës sa tardé burdu juróom mooy aada bu aada du mujjibu juróom fukki at ak juróom nga toog mosoo tardé du mosoo tardé jeexlu burdu ba ba yàlla jël la loolu euh, buñ ko doon jàngat sëñ Mansour radiallahu anhu li nga xam ne moom la gën daan ñaax taalibe yi lan la ci lan la gën daan ñaax taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci këram ñoo ñoo yaroo ci ci moom taalibe yi li mu leen doo gën a ñaax mooy fonk ndona xadara bi ndax toujours ko wax ne ni xadara bi daa am ay mabadi yoo xam ne moom lañ ko fondasi mhm. kon nag mabadi yooyu nañ ko fonk mhm. dara nag jiitu ci wiraasa bi te mooy xam-xam mhm. ak tarbiya toujours li muy doon ñaax njabootam di ko ñaax taalibe yi di ko ñaax mboolem koo xam ne yaa ngi lu baata mooy lan nañu fonk ndona xadara bi mm-hmm. te ndona xadara bi li ñu ko mun a wëtte mooy lan mooy xam-xam mm-hmm. kon mooy lan nañu dem jàngi mm-hmm. nañu dem jàngi nañu tarbi fonk xadara bi taxaw li xam ne moom la Cheikh Alhaaji Malick maamam radiallahu taala anhu fondation fii ci kër gi ndax Cheikh Alhaaji Malick bu mu ñëwee den woon kër gi santul si yàlla la sant kon ku yàlla ñor rek ci kër gi nga bokk kon loolu Cheikh Mansour di ci bay woon xel bu baax a baax kon ku doon toog jotaayam ñaari baat yooyu lu mu gàtt-gàtt daanaka wax lu mu néew néew tamit daana mottalee juróomi sëñ Babacar yoo xam ne ci la lépp nekk moom Cheikh Seydou Mouhamadul Mansour radiallahu jëre jëf kon leeral na sëñ Mansour ni mu daan yare li ëpp solo mu ko daan wax mooy na ngeen jàngi na ngeen gëstu ji ndax Seydi Hadji Malick ndonom du du mbubb yu rafet du du du du teraanga joo xam ne dañ koy lekk wala dañ dañ koy gis ci bët waaye ndoonu Cheikh Hadji Malick ku ko bëgg a doon da uti xam ndax li Maodo li sa xaaj Malick soo wax mu ne sëñ Mansour daana wax ne maamam daana wax ne kër gi santul si yàlla la sant kon li sëñ Mansour daan ñaax nit ñi mooy nañ jàngi ndax boo bëggee yilif nit war ko yóbbu ci yàlla la ci jiitu mooy xam-xam kon sëñ Mansour daana ñaaxee ci xam-xam ba ñu tuddee ko borom daara yi tur woowu yaakaar naa sëriñ si ko am Sénégal bariwul koo ne borom daara yi dañuy jàpp ne sëñ Mansour la ndax lu tax fanweer at ak juróom ku jàngale ko juróom fukki at ak juróom nga jiite Bordeaux yaakaar naa loolu ku la tudde boroom daara yi wàcc na kon sëñ xaj man dañ lay wax kàddu gu mujj gi nga xam ne moom ngay tàggoog auditeurs yi moom ngay ñaax nit ñi ban kàddu la kàddu bi day kanaa jéem a topp njeexantalu mag ñi ku demee ne Cheikh Mouhamadul Mansour ak ay waajuram ak ay rakkam ak ay magam ndax mag ñi li leen war def nañu ko wax nañu ñu dégg bind nañu bay jëf nañu ñu gis kon dara desatu fi lu dul jéem a topp seen jeexintal di leen sant bu baax di gërëm di profité tamit di sant njabootu Cheikh Mouhamadul Mansour ki nga xam ne mooy ci bopp bi tey mooy seen cheikh mooy xalifam seen cheikh Ahmad Tidiane si Mansour ak mboolem famille bi yëpp di leen sant di leen gërëm di sant waa télé bi yëpp di sant waa xadara bi yëpp. barakallah Oustaz Alhaji Malick Sow yaakaar naa kàddu yi nga tëjee rafet na neex na noonu itam noo ngi gërëm ñëpp di nuyu waa télé bi waa rajo bi di itam beesala suñu suñu suñu taalibe ci waa kër Cheikh Alhaji yëpp. di leen ñaanal yàlla xalifa bu bees bi fi nekk ak ay rakkam yàlla yàlla may leen jàmm defal leen sutura te dugal nu ci biir aj Malick noo lay sant di la gërëm di wax ne mboolem ñu ñëw ci gàmmu yàlla yàlla indi leen ci jàmm yàlla nañ ñëw ak jàmm yàlla ñu fekk jàmm yàlla nañ bàyyi ci jàmm yàlla yokk sutura yi bañ teewe ko ay at at gàmmoo nag du pour sañse gàmmoo nag nekkul ngir ay bernde gàmmoo ngir lan la nafar judi jikko yonent bi dégg ko bigge ko jël ko mu nekk sa royuwaay nga roy ko ëllëg nga am aljana waaye nikkul ni gàmmu ga neex na bari na ay bernde xotti naa nangam dem naa nangam loolu du loolu du gàmmu kon gàmmu li Cheikh ma Hadj Malick waxan rek na ngeen màggal su yonente bi bu fekkee jëmul ci lu xaram kon maa ngi woo mbokk yëpp kuy ñëw gàmmu na sa yéene sell ne maa ngi dem Tiwaawan ngir màggali guddi yonente bi déglu histoire Seydina Mohamed mën a jëriñu ci ay jikko mën a jëriñu ci ay melokaanam waaye du lekk lu neex du sol lu rafet du naan lu neex ndax gàmmu loolu tax gàmmu euh, duyaat suñu ruux ci ci leeru Seydina Mohamed du yaa sunu roox ci leeru Cheikh Cheikh Cheikhu Tidiane ak ay ak ay muxaddamam loolu moo tax a jóg gàmmo kon noo ngi invité ñëpp ñu ñëw ak jàmm delloo ak jàmm fekk nu jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu badril hudal mumajjadi bi izmin wal kibriya ta'azzara rabbi salamahu ala نور الورى فمن علينا إله العرش خالقنا بصحبة القطب في الدنيا وأخرى بارك مكة بارك مدينة بارك فاس بارك تيوان بارك الشيخ الحاج مالك بارك الشيخ الخليفة الفاتح